salaamaaleykum mes amours salaamaaleykum maremu salaamaaleykum sama mbokku olof yi namu naa leen xaqide ñinkarni lenki nak njofene français ke nasoni ken cakakam ngatuna français cakakam s'il vous plaît abonnez-vous partagez likez ça fait longtemps du coup aujourd'hui je vous prépare du poulet accompagné avec du spaghetti chinois tu mettre de l'huile dans ton marmite, tu mets tes oignons, tu mets ton poulet. Après, tu mets tes épices, tu mets tes marines, ton marinade, tes sauces soja, poivre vert, jaune, rouge. Tu mets ton crème fraîche. Après, tu bouilles de l'eau, tu mets dans tu mets les spaghettis dedans, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, ça dépend de toi. Du coup, Si tu finis, tu prends, tu le mets dans ton sauce poulet bien assaisonné. Le goût de ça. Si vous goûtez ça, oh là là là, vous allez me revenir. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, abonnez-vous, partagez, likez. Mare mulekina poulet, spaghetti nyada parnaro crème fraîche. Anam poulet nguta, anaram brama, anabasa leki hinaro, anam poulet herengana duta, anam yepisunda marinarunda. en poivre vert jaune rouge like an gana duguta nan crème fraîche la nan spaghetti chinois nguta na warinda na sapendo pobra honne like an gana na uta na nya chabakal an na rampule nogonga le goût de ça an gana ketem mare mu ha partage gana abonné gana like mashallah gana ketem vous allez me revenir salaamaaleykum sama mbokk olof yi tey spaghetti poulet laa leen di defaral nga jël sa oignon def ko si sa marmite nga def sa poulet def say marinade def say épices def say sauce soja salé sucré soo pare def sa poivre vin rouge vert jaune rouge soo pare def si sa crème fraîche balaa muy ñor nga dem jël sa marmite def si ndox mu baax nga jël sa spaghetti chinois baxal ko def si xuuti xorom tuuti poobar su baxee bu pare nga jël spaghetti bi su la neexee nga couper couper ko su la neexee nga bàyyi ko noonu sa dépend de toi s'il vous plaît mes amours ngeen abonné partagé like ngeen jàppale seen bokk saraxule bi seen bokk seen olof bi lépp laa ma mun a avancé ngeen a partagé abonné like soo pare gis ngeen lu muy men maare mu xada wara gana ñime ga ñana mo bi yomb bay bëgga dee anyana kundaan abonné partager liker salaamaaleykum